kama ata antaha xayri rusli bàyyi ne fal ilmu xam-xam amri sama dund huwa moom imaamul amali mooy njiital jëf kama ata comme nim ñëwee woon an taaha ci yonent bi xayri rusuli gën ji yonent xam-xam daal ci sama dund man bàyyi mooy njiital jëf comme ni ñëwee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga moo gën ji yonent yonent bi lépp lu daan def rek xam-xam la ciy jiital bàyyi ne moom it lépp lu muy def ci dundam xam-xam la ciy jiital kon loolu jàngat la ci mboolem jullit ñi xasil utal uluman xam-xam arbaan ñeent za salik yow mi sóobu yow mi bëgg ci yoon tasawuf wala yow mi bëgg a suubu pour nekk ko sell nekk julit bu baax buy gërëm bàyyi na utal ñeenti xam-xam yi awluha ba ci njëkk li xam-xam bi nga war a njëkk am yow julit bi bàyyi ne mooy irfaanu rabbin bi nga xam ne mooy buur irfaanu xam rabbin borom bi malik kay nga xam borom bi nga xam ne moom mooy malik mooy lan mooy xam yàlla jaam bi lu mu war a njëkk xam rek mooy yàlla ndax yàlla moo ko bind kon balaa mooy xam mbindeef na xam ki bind mbindeef yi balaa ngay xam papa ak yaay xamal yàlla balaa ngay xam sëriñ ak leneen leneen xamal yàlla mooy xam-xam bi jaam bi war a njëkk a am xam yàlla wasaani ñaareel ba an taarifa nga xam maa lépp li nga xam ne yaallaqa dina aju al ibadaati ci jaamu faza loolu taxaquq ànd ak dëggal wala dëgg-dëggi xam gannaaw boo xamee yàlla nag da nga xam naka la ñuy jaamu yàlla mooy lépp loo aju ci jaamu yàlla gi yi nga xam ne farata la yi nga xam ne sunna la yi nga xam ne ay ngëneel la yi nga xam ne yuñ sopp la yi nga xam ne yuñ sib la yooyu yëpp jaam bi mooy ñaar lab xam-xam bi mu war a xam thaalisuha ñetteelab xam-xam bi irfaanu mooy xam xaali nafsi xaalab bakkan bi min xadriha ci ay worom wa kaydiha ak ay pexeem wa dasi ak ay niin niinam ñetteel ak xam-xam bi mooy jaam bi na xam xaala bakkan bi ndax bakkan bi dafa am ay xaal yoo xam ne moom la bëgg di dund soo ko doon tënk bakkan bi lépp lu yàlla bëgg bakkan bi bañ na loolu lépp lu yàlla lu lu ilaahiyatu rek bàñees nee na bakkan woote na ko lu ilaahiyatu bakkan bi moom woote na ko kon na nga xam ay pexeem ci yi nga xam ne dana fa jaar wor jaam bi ak yi nga xam ne ay pexem la nga xam ne yi pexe bakkan la rek mu nga lay tayalloo di lay nelawloo ay yi nga xam ne mooy ay bëgg-bëggam mooy wadas si li nafsi ñeel na bakkan ayibun ayib bakkan dafa am ayib ayiba bakkan mooy mu lay mu lay tayalloo di la néewaloo di la sàgganloo jaamu yàlla lil fu aadi ñeel na xol ayibun ayib xol moom it dafa am ayib ayibab xol mooy lu dul yàlla daal di nekk ci xol bi ndax xadisu qudsi bi dafa wax ne alqalbu baytullaahi xol mooy néegab yàlla kon suñ fa defee lu dul yàlla rek su boobaa xol boobu am na ayib li ruuxi ñeexal na ruuxu ayibun ayib ruuxu moom dafa am ayib ayibab ruuxu mooy mu ñàkk xam yàlla mooy bu ñàkk a dund ci yàlla ñàkk naan ci yàlla ñàkk a lekk ci yàlla ay euh, ruuxu su amul yooyu rek léegi ruuxu gu am na ayib lay sa fii déet mu ci nekk ci wax ji ma wax rey bun benn sikk sàkk lii ma wax ne bakkan am na ayib xol am na ayib ruux am na ayib amul benn sikk bu ci nekk bàyyi lim ne amul sikk nag amul sikk laa bu demante ñàkk nag euh, fal adaba teggin al adaba teggin yaa sa saalik yow mi soobu am teggin na nga am teggin yow mi soobu fa innahu moom teggin googu albaabu baabu mooy buntu ba de li kulli saalik ñeel képp kuy soobu ñetteelab ñeenteelab xam-xam bi nag mooy teggin kon baa nee na am nanga nga sàkku ñeenti xam-xam ba ca njëkk mooy xam yàlla ñaareel ba mooy xam ni ñuy jaamu yàlla ñetteel ba moy xam xaala bakkan bi ñeenteel bi mooy nga xam am am teggin teggin am yar am ko ci zahir am ko ci baatin moo tax mu ne fal adaba teggin al adaba teggin yaa sa saalik yow mi sóobu rawatina nag ki sóobu ne moom dafa bëgg a xam yàlla fa innahu nag moom albaabu mooy buntu ba li kulli saalik ñeel képp koy sóobu sofiyanke bu mag ba dafa wax ne dem naa ci bunta wilaya fekk ñëpp a ngi fa toog di xaar pour am wilaya ma dem ci bunta xam-xam gis ne ñëpp fa toog fees fa dell ba aw ma fu ma toog ngir bëgg xam-xam ma dem ci buntab yar mooy buntab teggin ngir sàkku fa tegin gis ne foo fekk ma fa kenn ma toog ci buntab teggin di sàkku tegin di sàkku yar di sàkku yar di sàkku yar ba am teggin bi ma amee tegin xam-xam ñëwal ma waaye wilaaya daal di may ñëwal Cheikh Abdou Barahama day wax ne taalibe ne sàkku ñett taalibe sàkkul xam-xam taalibe sàkkul barke taalibe sàkkul teggin te mooy yar bu fekkente ne nag ñett yi yëpp mënoo ko dajal sa fexeel nga am yar yar soo ko amee te mooy teggin xam-xam dina la ñëwal barke dina la ñëwal bu fekkente ne danga am barke rek te barke fi ñu ko amee mooy nga xitmaal sëriñ bi liggéeyal sëriñ bi liggéeyal sa wayjur liggéeyal kilifa foofu la barke di amee bu fekkee dangaa am barke te amoo teggin bis dina jot rek nga ñàkkee teggin kenn rek la nga amoon ci barke yëpp mu daal di dem bu fekkee da ngaa am xam-xam te amoo teggin su boobaa ak lam yàgg ca lam yàggoon rek da nga ñàkk xam ba su boobaa ndax la ndax ñàkk teggin soo amee teggin nag xam-xam dina woo womatu ñëwal la soo amee teggin te mooy yar ba léegi xam-xam dina omatu ñëwal la te alal yi dina omatu ñëwal la